tedd bii nga xam ne moom lañu ñu daje ci subaak léegi ngir fas yéene fàttaliku ak waxtaane jàmbaari lislaam jàmbaaru yoonu murit koo xam ne ku jaayoon ab cëram ci njuréel la lépp jënde ko ak taalibe waaye koo xam ne ku teel a ci kanamu seexul xadiim ñu di ko fàttaliku ñu di ko fàttaliku ngir mën a nafaraat ak jàngataat mën a ngir mën a jële ay bind yu am solo ci dundam gu tedd googe waaye ci dundam gu tey googe ñu ngi nuyu ñëpp di ci turu kilifa gi nga xam ne mooy kilifa jotaay gi di seex Mouhamadul Fadal Bousso ibnu Sëriñ Cumbuleen mi nga xam ne moo teewe moo moo toogee jotaayu Sëriñ Masamba Kanni waaye di ko jot jottaliloo mu nuyu jottal ñu ab ñu ci mbokkam yu tedd yi nga xam ne ñoo teew ci bërëb bi di ay waajuram di ay rakkam ak magam wala ak i jarbaatam ak i doomam ak taalibe yi nga xam ne ñoo teew ci bërëb bi yëpp kon sëriñ Seexuna Mbàkke euh, bismillahi tafadal maskura nga jàngal benn ci ay ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء أنما غنمتم من شيء baarakallahu fiikum sëriñ Seexuna ci baat yu tedd yu sell yooyu nga xam ne moom nga ñu fi yëkkatil te jotaay bi di bërëb bu miin wala boog jotaay bii miin ko lool Sëriñ Murtada Bousso moom Sëriñ Abdourahmane Mbar moom soxna Roqaya Bousso mi samba kan bismillah marhaban marhaban bi daaril qadim fa ahlan wa sahlan bi dayfin karim marhaban marhaban bi daaril qadim fa ahlan wa sahlan bi dayfin karim bi qalbi tufajjiru aynu surur ki way teew yi fi mag ñëween waa mayeen bi qalbi tufajjiru aynu surur ki way teew yi fii mag ñëween mayeen fa ahlan nasal tum ne seen attëgi ko am gan yu ni dafay reedi biim bi léeb attabar kenta yàlla ko def lu Seex Bamba taaloon du fay baadi imaam Maaduyal Cheikh Massamba al Karim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi nuyu ñëpp di ci jiital kilifaak jotaay bi kilifaak kër gi Serigne Fallou Bousso di ko ñaanal sunu boroom guddal fanam te wéral aw yaramam ba mu yéene. ci toolu maamam bi mu mën koo àggale waaye ànd ko ak mbooleem ay rakkam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay doomam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sëti mbooleem kër gi di itam dalal mbooleem mbokk yi nga xam ne bàyyi ko nañ ci ay gox yi fasante ko ngir mën a teewe jotaay bi nga xam ne jotaale ci jotaayu kër sëriñ Touba ndax penc mi ñu nekk di pencum sëriñ Masamba Kanni Bousso sëriñ Masamba Kanni Bousso ñu guddal ci di ko xamle su ay mbokk ñëwee danañ ci gëna yaatu waaye nag du kuñ réere ba dañ ko ba ba mu aajowoo xamle euh, waaye itam ñi nga xam ne itam ñoo teew ci jotaay bi di ay kilifa ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal di leen siyaara di wax ne ci seen kër itam ngeen ñëw tey nag xëy na waxtu wi dafa xaw xat moo tax ci am na yeneen programme yu war a jàll waaye ñu war a daral mbokk moo xam ne yaakaar naa moom itam aajowul ñu koy présenté ndax ku ñu xam la ci li nga xam ne moom mooy bay mbay mu rafet ci toolu Serigne Touba Khadim Rasoul koo xam ne itam fu mu yëkkatee kàddoom ñëpp xam ne ci Serigne Touba rek la jëm moom daa wax sax ne moom daa spécialiste sëñ bi rek mu jeex takk loole nag mel na ne sëriñ bi itam gàttanu gàttanu na ko ci bu baax a baax leeral na itam xolam ci lu bëree bëri ba ni muy leeralee demi liggéeyub sëriñ bi ak ki nga xam ne mooy jëmi dëgg-dëgg sëriñ bi euh, neewaa na ku ko ci leeralee noonee di mbokk moo xam ne itam euh, muy xam fii ci réew mi xam ko ci bitim réew xam ko fépp ci àdduna bi waaye tey jii mu ñëw war ñoo defal waxtaan woo xam ne wu am solo la ndax da ca mënta ñàkk euh, waxtaan law itam woo xam ne dañoo gis ne jamono daf ko laaj ndax ñu ngi tuddee thème bi waxtaan bi euh, al mubayaatu fi l muridiya xaqiqatuha wa ahamiyatuha waaye mën nañ koo tënk rek ci kenn dellu ci kenn muy sëriñ Masamba Kanni Bousso moo tax sax dañuy wax ne dañ koy wax dañuy waxtaanee dimbi tomb boobu waaye dañuy sukkandiku ci sëriñ Masamba Kanni ni mu jaayoonte woon ak Serigne Touba Khadim Rasoul surtout ci xasidaam googu nga xam ne moom lay wax mantiqati kal jismi lil baaxil xadim di nuyu ak siyaar Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko kàttanal ko ba naal yi nga xam ne naal na ko yépp yéene koo liggéeyal sëriñ bi moo defe ko ni mu ko bëggee ànd ko ak njaboot gi yépp di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne it ñoom la feggool ñu bokk moom nekk ci jataay bi di njabootu Cheikhul Khadim nuyu bokk yi nga xam ne it ñoo woote jataay bii maa ngi jaarale nuyoo boobu ki Cheikh Abdoul Ahad Bousso mu jàllaleel na ko ci ñi mu seqal jataay bi ak ñi mu seqal liggéey bi yépp di jaajëfal sunu mbokk yi nu feggool ci jataay bi di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nu may ndimbal ak ba ñu dellu ci jataay bu sell bii ci pàkk bu tedd bii mbokk yi tànn tomb ba am solo boo xam ne waxtaane ko ak fàttale la ngir dana tax ka na ca yoon wa xam ne ma nga ca ka ca newulil mën a dellu waaye ñu jël ca nag misaal wala doxiin waw kenn ca ña nga xam ne defoon nañ li ñuy waxtaanee muy jaayante muy Sëriñ Masamba Kanni Bousso yàlla yàlla dolli ci moom ay ngërëmam diirub doomu aadama ngi dox ci kaw suuf dafay mel ni nag bu ñu nee jaayante ci yoonu murit yoonu murit mooy yoonu lislaam rek ndax Sëriñ Tuubaa dara génnul yonent bi alayhi salaatu wasalaam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ay jamono yu yàgg loola mel ni bu doon aw yoona dafa ràpp te day mel ni ñi miin ab àll wala sax ñi xam aw yoon dana nu miin aw yoon ba yàgg ñu ne am naw teg ak yoon yoo xam ne ay ñall la waaye dana tasaaroo bari ràppug yoon wa nag ak bari fili yoon ya te ñëpp am yéene jëm ca dëkk ba dana faral di waral ña ëpp ca ña jëm ca dëkk ba du ñu jaar ca yoon wa bu boobaa nag dana indi ak réer dana indi yit werante ndax léegi-léegi nit dox ba ba sori taxaw na ah waaw ndax fii yoon wee ñenn ñu ne ko moom la kay ku fa jaar dem ñu ne ah, moom de daa mel ni yoon wi daa teggi yoonu mag wa ñu ne waaye kojiwaat na benn nag mën naa am dab si mën naa ñëw dab siwaat ko mën na koo bañ a dab siwaat waaye sëñ bi moom bi mu ñëwee xam ne yoon wi mooy mooy siraatul ba mu ñëwee amul jenn yitte lu mooy fas yéene yeesal yoon woowee te yoon woowu mu doon yeesal mooy yoon wa nga xam ne ca la yàlla awale woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi nag def ko muy giddi bi nga xam ne ci moom la nit ñi jubee innaka la tahdi ila siraatul mustaqim kon day mel ni am na condition bu ne woon ko rek yaay jubale ci yoon wa mën naa am ñu jaar feneen waaye ila siraatul mustaqim kon mooy yoon wu jub wa wa yàlla tànn wa nga xam ne mooy yoon wa gën loola it moo tax boroom xam-xam yi ñu ëpp ci ñoom dañoo dëppoo ne dana yell ci mépp mu kàllaf bu fekkee ne bëgg naa sellal bakkanam ci ay radail an nafsaaniya wa shaytaaniya mu sàkku bi cheykhin murshidin mutabaxil fi ulum aarifin moom lay wuti bu fekkee ne bëgg ngaa mucc ci gàkk-gàkk yi nag kon ndake da ngay wuti ku la wammat bu fekkoon ne dana doy kon ndax ba yàlla yónnee ña jiitu woon ca yonent ñi ñëw ginnaaw yonent yooyee jiitu woon te di yonent lu tax seen ñoñ jaayante ak ñoom te sukkantikuwul rek ne yàlla yónni wu na diw jaaroon na fi waaye dañuy wax ne jamono bu nekk yàlla day tànn projecteur buy niit jamono ku bëgg a jëm ci moom ca moom ngay sukkandikoo loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay saxaabaam jaayante ak moom jaayante googu ñu jaayante nag gis naa fu sëñ Mbàkke bu si di leerale diggante al ak a taalluq nga xam ne am na tuuti différence ci nit mën a beru ne wékku ci xolam aju ci mën a joxe addiya ak mën a liggéey ak amuk cofeel bokkul ak nag ñëw joxe sa bopp ci topp sëriñ ba ca fa muy jaar ak na muy doxe ak lam lay digal ak la muy dund lu ci nekk dafa am nu muy mel gis naa sëñ Mbacke Bousso leeral ko ci lu yaatoo yaatu mu mel ni kon dafay euh, war a wut ku koy wommat saxaabi dañoo jaayante Seyxul Xadiim mii ci boppam dafa jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayante goo xam ne dafa jëkk jaayante ak moom ci xolam jëkk ay gëtam di ko gis baayaatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa aqdimuhu lillahi muftalida waaye bayatuhu bil qalbi wal aqlaam ka bayatil malal aadaami dama jaayanteeg moom ci sama xol jaayanteeg moom ci samay xalima comme na gaa ñu baax ne jiitu woon jaayante ba mu jógee bëgg koo liggéeyal jaayante la ko tudde tuddee ubayiul yowma rasul al mustafa bi xidma kon dafa jaayante moom cheikhul xadim jaayante googu mu jaayante woon ak yonente bi salaa salaam it ba muy ne ca tumuranke gaag bi muy ne ci bii rek yépp ak ba mu ko tàmbaleegut ak jaayante ci la nekk nga xam ne bàyyitu xayral mursalin saxti nga xam ne jaayante na ma moom waxtu yu may jaayante maa ngi nekk ku tumuranke waaye lan laa ci jublu woon ca jaayante ga ma yéene ca nag yéeney saxaaba ya almuhaajiruun nag ansaar ya te comme nañ jaayante woon noonu laa jógoon ngir jaayante ko man Cheikhul mu jaayante woon it bi mu ñëwee dafa indi yoonu jaayante ndax lii boroom xam-xam yi wax ne mënul ñàkk ci nga am koo xam ne dafa lay wammat nekk ku géeju ci xam-xam yi xam ayib yi ak ragg ràgg yi nga sànni ko sob nos ngir mu wammat la ngir nga mën a am fa nga jëm ndax dañuy wax ne tënk bakkan ca cosaan lu jëkk la faawu day aaja xam ba noppi du ca yam ak jëfe ak taqoog sëriñ boo xam ne dalay wóor ci moom dëggaluk ak topp ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam aku xam yàllaam ki nga jóg di jaayanteeg moom it ndax dangay jóg rek koo dajal na ko jaayante na ma ak yow déedéet dafa am kon booy jaayante dafa am koy jaayanteel ba noppi nit ki ki muy jaayanteel lay wala jëkk xam ba noppi mu ne kon la ibnu ashir waxoon ne yasxabu cheykhan aarifa almasalik yaqihi fi tariqil mahalik da ngay ànd ak sëriñ boo xam ne day xam dëgg-dëgg yoon ya ba noppi nag man laa fegal danger yi nekk ci biir aw yoon ki dem ba egg ci yàlla xam mbooleem gàllankoor yi ak agresseurs yi gàllankoor nit ndax ku suuba aw yoon am na lu lay dog saalikuune yi am na ñu leen di dog am lu ñu war a yóbbaloo faw nga am ku xam loola ku la cay wommat mu ne kon am ko waxoon ne laa taslu taslukanna lay sa taarifuha bila dalilin fa tahwi fi mahawida bul suubu aw yoon te xamoo ko ci nan ànd ak ku lay wamat gis nga boroom xam-xam yëpp boo dajalee li ñuy wax li taawi li di gudd gudd da ngay fekk sëñ Tuubaa tënku ci wenn bay boo gisee sëñ Tuubaa mën a gën a gàttal am njàngale ci comprendre texte yi fukki bayit lañuy bind di ci jàngale men benn maana sëñ Tuubaa tënk wa man yurid li rabbihi wusula fal yabri qabla sayrihi dalila loolu bañ de ban dalee di expliquer ba léegi loolu mooy li sëñ Tuubaa ku bëgg a jóg jëm ci yàlla bala ngaa dem na nga jóg wuti ab sëriñ bu lay wammat waa tasawuf ñoo wax ne dafa nekk farat ji ab murit mu am murshid am haadi dalil am guide spirituel bu koy wammat boo xam ne du mën a ñàkk ki bëgg a egg ci yàlla it Serigne Touba ne faw ci sunna si yonent bi lay jaare waaye day wuti Serigne bu koy wax man man talaba al wusula lil jalil fal yactasim bi sunnati rasul bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batin an sabil yaquduhu bil ilmi bi tarki aada Serigne ki bëgg a ci yàlla te defe naa ki jaayante ak a toppe egg ko tax a dama defe ne kenn ñëw di jaayante ngir seetaan yàgg ci yàlla tax a jóg sëñ bi nga xam ne moom la ñuy jaayanteel ak moom ci almuridiya sëñ tubaa moo ne ku bëgg egg ci yàlla jàppal ci sunna rasulullah kon mbokk yi buñ déggee sëñ Tuubaa ci mbedd buñ ko déggee ci am Gana Messere rek jugé ci sëñ Tuubaa déedéet sëñ Tuubaa boo koy atte da nga koy atte ci jëfam atte ko ci ay waxam waaye bul ko atte ci jigéen ju fonk boroom këram rek di ko tagg nga ne góor gii moo fi man déedéet da nga koy attee ca jëfam man talabal wusula lil jalil adduna bépp na tekk di déglu ku bëgg a yegg ci yàlla joxoñul boppam joxoñul kenn fal yaxtasim bi sunnati rasul na nga jaar ci sunna si yonente bi alayhi salatu salaam nga ne man kat ak lu ma xalaa goo xam ne damaa yor sama tum kon kan laa ko war a jox mu wammat ma mu ne bi an yu lazima mutian laa yamiil fi zahirin wa batinin ani sabil day dem wuti waajooj nag al mutia lay nekk aji topp yàlla fii daahiril mu batin du doon sëriñ boo xam ne day incarné bitiyam buy génn mboolem melaw sëriñ mu am ko du xool ca kaw di sëgg di gëmm di dey ndànk di yuur te bu fatoo ci biir soppi lépp nga xam ne buy génn jataay ban koy mele noona la muy jëkk def sànni mbubbam na sonn naa waaye nangam tàmbalee wax leneen sëñ bi dane day mel melow biir néegam ak melaw bitiyam ñooy yam ci moom mu tian la yemil fii daahiril mu batin kooka nag boo jaayanteeg moom ba mu lay yóbbu nag ci yii la lay teg yaquuduhu bil ilmi wal ibada yu yurabbihi bi tarkiwaat daf lay wammate xam-xam kon kenn mënu laa yóbbu ci tapane làmb toog nii laa ko déggee sëñ diw nii la ko doon waxee bàyyi diw fii la nekkoon ak yooyu yëpp du yoon yaquuduhu bil ilmi waaye boo amee xam-xam nag wal ibada kon du yoonu féttéerlu boo jaayantee da ngay dox ci al ilm wal ibada ki lay wamman nag kamaa yu rabbihi bi tarki aada tarki aada moom jërul di di commentaire da nga naan bàyyi lu juuyoog diine rek lu juuyoog diine rek mooy tarki aada nga xam ne loo xam ne juuyoon ak diine ndax bu fekkee ne aada ju diine nangu la da cay lu juuyoog diine nga bàyyi kon yow mi jaayante kooku moo lay wammat ngeen nga jëm ci ñu ne kon boo xamee ne lii mënta ñax ci doomu aadama ji nga xam ne la budda li insaani l aqil min talabi cheykhin dafa mënta ñàkk ci ku xellu mu wut ab sëriñ boo xam ne da koy wammat nekk ku géeju ci xam-xami biir yi ak xam-xam biti yi nekk aji laabiire ndax wa wajaba taata man yaxfu rasul salla yi dafa war ki nga war a topp mooy man yaxfu rasul sëñ Tuubaa nee na ki nga war a topp jaayanteeg moom mooy kii roy yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye mu nekk it koo xam ne ñaari ñaari day feesal àndaari sharia feesal àndaari xaqiqa nga xam ne la ko wër lépp iman ak islaam ak ihsan lay ñu ne waaw léegi ku mel nii boo ko doon raas nooy def ñu ne wala yujadu fi hada zaman man taxalla bi hadi al awsaaf al safiya wa shurut al akida gayri cheikhina wa wasilatina al cheikhu ahmadou bamba melo yu mel nii yàlla bëgg ku ni mel di su ko gis ci jamono baa ñu xam ki nu mel ku dul cheikh ahmadou bamba moo tax bi mu ñëwee mu am sañ-sañu wax ne ku namm li ma namm gis nga bisiñ sëñ bi jaayante loolu la ma wax waman araada maa araat na waxut dee ma seetaan may def wa man araada maa araat na waxula del yéemu tanaan ëskay waman araada maa araat na fal yasir bi sayrina fa ma jëm ku fa bëgg dem defal ni ma def fu ma teggi tegal boo ma jotitut ma yeggee nga ñëw waaye ràccu ferantulaay rek jël sa kaala ñoddi kanaan naan sëñ Tuubaa amul morom sëñ bi dem bu yàgg ki gaayam ngay wër di xool koo àndal ak koo dajalaat sëñ bi waxul lool waman arada ma arat na fal yasir bi sayri na toppal fi man boo amul carbotage it ba nar a foncé du yàgg ña ca ginnaaw puus la waaye boo toogee démo du la jëriñ sëñ bi dafa wax ne ni may doxee doxee ni doon ko ne kenn mënu ko waaye digal loolu la digle ñu ne lu tax sëñ tubaa moomu kat waxut bu hasal asr wa wajaba ala kulli di aqlin wa duxuli fi zumrati ayaalihi wa taqarubi ilayhi bi aqdi dayli dafa war ci képp ku yàlla joxum xel mu xam ne kii mooy xutbub zamaan bi mooy ki yàlla donnaloo asraarul ulum ak anwaar yi na ko benn naaru gànnaar waxoon ne xawsul wara ahmadul baki waarisu asraaril ulumi jalliyaati xafiyaat man jaddada diin id kaadat tutamisuha ahlul hawa wa radiyatin xawiyaat sëñ bee yor gopp bi ñëw di bay sëñ tubaat dane tool bi setee sama yitte ma bay ko rek laa bëgg kon ku ma topp ñëwal ñu dem ma won la yoon wi ngay jaar ngir nga mën ko def moo tax boo jàngee ba am xam-xam ba mel ni sëñ ma sàmba kenn bokk ci askan wu baax bul ferantulaayu sëñ bi dana wa baax yasluk in raamal wusuul ala yaddi mukammilin yax fu rasul léegi nag bi nga bokkee fu baax bari nga xam-xam jàng ba noppi <laughs> yegg moom yegg lay tax nga def ko mooy nga dem wutib sëriñ boo xam ne yax fu rasul fi ne sëñ Tuubaa dañoo tekkil ab sëriñ mu gàtt diw yi diw loolu lépp aw askan la diw nangam nangam aw askan la sëñ Tuubaa dana fa cheikh laa yu xaaliful mushafaa ab sëriñ daal mooy ku dul juyoog rasulullaay waaye koo gis la muy def yonent bi di ko tere bu neeb sëriñ lay du sëriñ ah wala bopp boppam wala bopp ñam woo mais du sëriñ bi sëñ Tuubaa considéré man ngaa doon sëriñum ña woo nag ndax gëm nañ la ñiy football sax am na njiit seen sëriñ la ñuy bëri am na njiit kasaalika waaye ñoñ ñooña nag waaye bul tabbal sa bopp nag ci sëriñ si ñuy wax ne ñooy wommati di jëme ci yàlla sëñ bi nee na ku bëgg a yegg na wut kon boo melee nii ba bu noppi ba baax da yasluk iraamal usul ala yaddi mukammilin yaqfu rasul dimension bii la sëñ Tuubaa déparé woon ñi yi nekkoon di ay mashayixam ku baax ku ne la nga am mu nungul la ko topp ci sa ginnaaw ba am yeggug boppam ba xamal yàlla na ko egg naa ci dayoo boo xam ne ku dul rasulu lay matalu matatuma wasila léegi kon sama digganteeg yow mu fi doxale kenn ku dul alayhi salaatu wasalaam laa tajcalanna bayni wa baynaka abad wasitatan siwa almuqaddimu salam wasilati abdu lmuxtaar sayidina huwa alladi man aba taqdimuhu qufila baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasulu sëñ Tuubaa dafa am sëriñ rasulullahi mooy sëriñam waxuma ca ca waxuma nouvelle génération bi moom bu ma ñëwee ci yenn yi may leeral dinaa ko ci leeral waxuma ña wëy mais ñi fi ne rek am nañu lànk na duñu ami sëriñ ba noppi di dégager lu ñuy encaissé bëgg a doon sëriñ nag incha allah danaa ci leeral dara ah day na ma ko jox te du ma bàyyi dara aw ma lu ma ciy sóoraale ci lu mu mën a doon ku mu dalit yow la dara rek dinaa wax lépp ndax sëñ Tuubaa moo gën ñëpp moo gën a rëy wax te waxam du ma ko jënde waxi ku yàlla bind ci àdduna moom ku mën a doon bu la dalee sa affaire la parce que li jëkk mooy ñàkk teggin gi nga ñàkk teggin ba bàyyi li sëñ bi digle ña ca la la neex ne ci sa bopp ame amee fayda ju toll ni dóor la yatu sëñ bi loolu rek la kon dafa mënta ñàkk ci mu jokk ci sëriñ bu koy wammat boo xam ne melow yii ma la waxoon ci la koy wammat moo tax sëriñ Touba bi muy moom dafa am ndigalul woote ñu jaayante ak moom ñu jaayante ak sëriñ Touba jaayante ala sami wa taa ci di ko déglu ci bu leen digalee waaye bu leen digalee ba noppi ñu jóg di ko jëf te ñu doon ña jóg doon jaayante ak moom ñëppit lu ci dab nit ci adduna addunaa la ca dab waaye ba nuy jaayante ak Serigne Touba yàlla kese rek tax kenn ku ne bi nga ñëwee indi sa àndaar ci Serigne Touba mooy mag ñi ñëpp da nga ne ko li ma bëgg mooy ngërëmul yàlla sëñ Darou Assane ba muy bind lool la wax sama ngërëmul yàlla sëñ ma Yacine mi jëng ba muy wax loolu la wax sëñ Euh, Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy ba muy ñëw loolu la wax ku ci nekk bi ngay ñëw fekk sëñ Touba bi ngay jaayante ak moom xoolal sëñ Mouhamadou Lamine Gueye loolu la wax jëm mooy min nii salaamun ka yaaquutin awit durari bal faaqa durran wa yaaquuti wa kal qamar ila alladi saara abdallahi xaadimahu cheyqi malaadi qiyaadi man qada watari hada siyaaratuna ya rawdat alxutaba ya qudwat alulama ya malja albashar xiraaya fawzun wa ridwanun wa takrima wa naylu aafiyata daareniya wasir kuy gàggantikoo la mahfuus dina fi la téeméeri rakka loo manqué bay jaayante bu doon baax wala jege sëñ bi dana tee jaayante borom saam lu muy jaayante saakab nu balla habibullah aabiduhu muhyi layaali bi awraadin sunniyaati téeméeri rakk la dan naafila yabiitu yu solli suma yusbi saa'ima wa ma juuduhu illaa ka amtaari waabidi borom saam téeméeri rakk lay naafila bokk ak bi soxna jaara bokk ak moom sëñ Mor Anta Sali ba noppi sëñ tubaa saxal ne ameelut yàlla bor amee lu ko mbindeef ci kaw suuf sëñ tubaa woote mu bàyyi lim jàpp lépp ne ci jaamu yàlla ak di ko topp joxe bàkkanam jox ko sëñ tubaa sëñ Mbacke Yibra maa gis ab leetaram muy sëñ Mbacke Kajoor ak wilaayatum lu sax la maa gis leetaram bu mu wax ne maag sëñ Mor Anta Seli ñoo bokkoon wuti wird xaadir ci ma sàmba Thiel suñ doom jii nag woote yoonu jub di siratul mustaqim di murit nu bàyyi lañ jàppoon jox ko suñ bopp ndax mboolem mbindeef yi moom la ci yàlla gën a doyloo maa gis lettre boobu xanaa sëriñ bu soobee doy na mbir koo xam ne bi nga daataan nungoo denc samp kër la ngay ñaan suñ borom doom joo am wëllu yu lay doon nga door a samp kër mu jaayante ak cheikhul xadim jaayante googu nag kon day lu wér loo xam ne la ngay def ba mën a jariñ fi ne boo beru woon naan sëñ bi suñ ñaari maama bokk maam ak nijaay ak sama nijaay ay bokk lañ te jébbulu woo ci doo ci doo jóg ci ñu di la yónni kenn du la siyaare la sëñ ma sax la sëñ ma Ahmadou Diop a doon wax yéen dangeen ngeen yeexe bamba nun nu gaawe bamba ku yeexe bamba ñee ku gaawe bamba waxuma la bañ a ñëw waaye yeexe ñëw képp boo ko defee tardé desitu cere yi ngay dajee la koppi ñeexee nga di ko séddale ko mel dane yu njëkk yi mooy teel a wujj loolu tax jaayante am njëriñ ci melow loolu nag bi ko seex ma Cheikh Massamba Kanni xamee la jaayante Cheikhul Khadim waaye jëkku kon am na jaayante ku njëkk ndax sëñ Bousso bi moom dafa jaayante ak sëñ Touba ba noppi jaayante ak njabootam loolu sëñ bi na ko sëñ Cheikh Bousso wax na ko feneen wax na ko feneen jaayante ba noppi jaayanteel ak njabootam waaye jaayante gu njëkk googu yi teewul sëñ Masamba Kan ni daa jaayante waatal boppam ci Seyxul Xadiim jaayante mbooleem ay rakam joxe waat boppam waaye léegi ki jaayante nag nu def mu jaayanteek Serigne Touba jaayante goo xam ne da koo waxal boppam te nanguwu la bàyyi ci topp Serigne bi melaw la wu ne mantiqi kal jismil baaxil qadim fi sunnatil muxtaar bil abdil qadim saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijal wajhudil jalal nawaytu bil xadimi kaw na kulli ibadatan li maliki dil fadli loolu moo jiitu waaye xoolal saraftu himmati kooku mooy ma Massamba nañu déglu loolu loolu la génération bi war a jël saraftu himmati li himmati rijal léegi man soppi naa sama doxin wëlbati naa sama laabi fos soppi sama yittee jëmee ko ca yittee gaaño ñu ne lu yittee gaaño mu ne wëccu di jëlaat yàlla képp boo ko lu yittee gaañ yi de kat kat kër gu rafet ay jongam montar bu seer wuyu téléphone boo sensé te nga xam ne bokku wa wajhu lil jalali saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijali wajhu lil jalal soppi sama yitte jëme ko ci yittey mag ña gaaña te yittey gaaña mooy yàlla wa baxda qasdi ha huna taslimu bi yaddi man sumaatuhu lxadimu xanaa kon leer nee na sama jubluwaay tey man sëñ ma sàmba kanni bu so mooy jébbal sama bopp teg sama bopp ci loxo yi cheikhul xadim laa koy jox li wa ci mën lawul araw bi wa sama wa kullu ma kaana wa baynahuma ngir jëmmi yàlla borom bi subhanahu wa taala ma jël sama bopp jox ko multafi multamisan kawni abdallah fi sunnati al muxtar babillah ca loola lañ nekk